mais Seydi Hadj Malick unité la mës a woote parce que ku ne sama sëriñ ak sama njaboot laa sama doom kër gi mooy ñëpp laa yemale taalibe sëriñ donc kër gi moo dépassé yooyu benn xalif moo fi am mu ñëw di doxal unité muy sëriñ Mbaye Sy Mansour tey mooy xalif bi moo fi toogee sëñ Mansour moo fi toogee Seydi Hadj tey na ko ñëpp renouveler la sens nangul ko ba pare ñu jël ay directive am gis nañu bi mu ñëwee ba léegi l'unité rek lay woote ziar général mu dajale sët yëpp jox leen seen responsabilité gàmmu mu dajale ñëpp kër sa do moom Maodo kër nii ñu yegg si gàmmu ren bi mu amulee dafa dajale kër yëpp way kat yëpp ci benn bërëb jàng gàmmu unité la wane moo tax gàmmu gi ñu jëm gàmmu unité la ñu bëgg si benn bërëb ñëpp daje fa kat yi ñëw donc ñu am ay télé xadara bi ñëpp ndaw ñi seen wàllu bopp ñoo war a réunir xool vision vision wu xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour xool vision bi nga xam ne la teg nag bañ xool beneen vision ku nangulul xalifa bi ñu nangul la ku ko nangulul jàmmaarloog yow loolu mooy suñu liggéey beneen ndaw bu ci utaat leneen nag yaa ngi nax sa bopp ki fi teewal Seydi Hadji Malick mooy Serigne Mbaye Sy ci vision am la ñu sukkandiku rek mu jeex lan TV nag moo wax xadara bi nag bu fekkee da ngeen di topp ñeneen ñi nga xam ne bu ngeen bu ñu wootee ci leneen ay Bercy ak ay yeneen événement dañuy fees bu ñu wonee leen da dagg bii di dem seetaan leen lii amul dara Wilane TV amul bénéfice lu dul tarixa bi lay dooleel pourquoi mënu leen ñëw sponsoriser ko pourquoi mënu leen ko partager pourquoi mënu leen ko dooleel loolu si yéen la mais yéen tarixa bi dina leen fay xadix bi loo fi def gis ko ku weddi laajal Jóob si wala nga laaj ñeneen ñi si commencé di def ak defantu parce que borom tarixa bi mooy Seydina Mohamed loolu nañ ko xam te Serigne Babacar que moo ne woon Tiwaawoon fii nit du fi donc nag ñun ñoo war a am fula ku cof tarixa bi tarixa bi cof la donc suñu média yi nañ ko fonk bu ñu war am junni média mille doyul mais nag yi jiitu war nañ leen dooleel ba ñu mën a recruter ba mën topp tarixa bi parce que ñi ñuy xeex dañoo créé ay média di yàq suñuy xalaat di yàq suñuy téere donc Wilane ñu ngi lay sant di gërëm kontaan naa lool yal na yàlla def jàmm kon mbokk yi mu ngi noonu Abou Diallo la ñu amoon waxtaan ak moom ci waxtaan yu am solo gis ngeen ko ci comme ni mu koy tàmm di defee di la engagement di waxtaan waxtaan yoo nga xam ne que képp ku ko dégg di njaboot sa xol dina sedd sa xol dina kontaan ci li nga xam ne toujours mu ngi koy jëmee ci xadara bi fa tabaarakallaahu ngir yaatal liggéeyu Cheikh Seydil Hadji Malick damay wax ne jàmbaar la jël na dundam lépp ak jotam ak